naataal fukk digle yi yàlla jox Muusa ngëneel la jëm ci askan wi yoon yooyu dañu ñuy xiir ci bëgg yàlla sopp ko déggal ko waruñoo defar ay xërëm di leen sujjóotal waruñoo fowe turu yàlla wi kenn ku nekk ci ñun war naa jël benn fan ci ayu bés bi ngir noppalu ci màggal ci yàlla xale yi war nañoo topp waajur yi te déggal leen waruñoo rayaate waruñoo njaalo waruñoo sàcc waruñoo tuumaal nit si lu mu leerul waruñoo ñeete